That was his fault. maa lay fay Ouzin. ci loo ne. maa ngi sant bu baax. depuis sa depuis bi nga bëree ba noppi boobaag léegi kenn gisagu la ci laa nga ne. maa ngi sóor a ñëwee saat. lan moo tax loolu. non Sini moo may indee saat. mooy daa am bi da nga fiy ñëw day am ay problème yu sew loolu moo tax ma toog am boo toogee sa ruxu yooyu détail lamb dafa bëri lu changé. dafa bëri lu si changé. amoo changé lu ci bokk. ah xam nga saa da nga ñëw saa si bunte bi di ñaan pour wàcce suuf tuus léegi da ngay obligé boo ñëwee nga tagg a pied yéeg si kaw pour bañ a sonal kenn kenn bañ la sonal boo seetaanee pare nga wàcc ñibbi waaw. Ah. pour man nag dafet bee la jàpp moo tax boobaa ak léegi nga loolu. non non même bu même bu m noonu lay demee waaw. Ah. mais boobaa ak léegi nga ah ñu ci bëri ne Quench ni mu waroon bëree bëreewul noonu dafa bàyyi mëninam dugg ci loo xamante ne xam. mooy li may wax xam ma defee dafa am ay signe chaque jour boo waree daanu leneen luñ la xamewul ngay indi comprendre nga mais nag lool laa bëree Lac Rose yàlla may ma si ndam ma yaakaar ne moo si bëree Alioune Seye dinaa am ndam ma ñëw yàlla xeeñ ma ma sant si. loolu nga préparé woon. non no laa préparé woon. xeex ak Alioune Seye. waaw waaw loolu laa préparé woon. ñu ci bëri ne da nga juumoo lañu gis ngeen nit booy daanu sa daanu si ngor. daanu si ngor daanu si jom waaw. mais gis commencement da nga commencé xeex mu lay tuuse ngay kaawu wala di encaissé ku yoo xam te ne baaxul mais nga gën a saxal sa bopp dëggal sa bopp kon na ci ñun ay lébu lañ lamba ji gisaguma bi mbër muñ fi dóor bu mu dee comprendre nga lii nag foo foo foo boo xam ne foo bi dafa agressif comprendre nga lu lu jàmm nekkul la waaw. mais dafa am dama li li di wax dama la koy yeggee ñu ci bëri ne leen si combat dafa jàmp ci moom. non jàmpul si man daf fekk combat bi moo nekkul sama yoon du Alioune Seye laa waroon bëril accident la bu ñëw sama wet kese amaatul la ne. mais boobaa ak léegi yaa ngi toog est-ce que promoteur yaa ngi lay contacter waaw la di. waaw maa ngi waaj bu baa a baax di def kon ni ma doon def. mais fi mu toll nii gannaaw Quench jugee na ci Alioune Seye Quench fan mooy yoonam parce que dégg nañu tout récemment Eumeu Sène bi waaw Ama Sène nee na bëgg na bëree man waaw loolu dama siy sant yàlla quoi amaseen bu demee ba na def bëgg a bëree Quench loolu man sant yàlla siy def parce que moom moo ñuy may chance amul lu muy prouvé moom combat ba amul lu mu siy prouvé te Ama wane na boppam tegu na fi mu war a tegu doon na roi ñaari combat ñaari combat wu Ama kese kese kese moo gën a riche suñu génération suñu carrière ñun ñëpp boo jëlee ñaari combat yi mu daan Balla Gaye rek moo gën a riche suñu palmarès waaw ah, ku mel noonu nag bu bëggee bëree yow waaw ah, mais dangay sant yàlla bu bëree gën nga ñaanaat sax xam li ngay wax nii dañ lay ñaan rek mu doon lu dëggu si yow sa bëgg lañ bëree moom. mais dañu gis léegi làmb ji amatul amatul amatul palmarès. amatul palmarès dara àgg boole la. léegi léegi nangu ngeen lool. waaw mais moo am si làmb ji loolu am si làmb ji. mais a làmb jaa ngi soore ne làmb amatul palmarès amatul dara àgg boole la. mais léegi xale yi nga xam te ñoo ngi déclenché di meññ. jëm ci kaw lan nga ci mooy li ma la moom titre roi des mooy toppaate fi mu nekk nii bu dañ koy teg fi nekk dem di ko jëli. a mais loolu amatul tey dañuy ñaan yàlla si te yàlla may gandam si kaw Modou Lo. combat bu am solo ñu si bàyyi combat boobu deen xaw a jaaxal surtout Modou Lo ñu ci bàyyi ne nañ si te yeggu wóoru woon yeggu làmb ji si amul ku mu si mënul daan maa la ko wax amul ku mu daan si làmbi Sénégal amul Modou Lo nag déggoo waxuma la la kii dama ne la Sida non Siteu fi mu toll nii Modou lay bëre. waaw ñëpp xam ma ne la amul ku mu mënul daan si lambu Sénégal asama Modou Lo. mais ñi ngay dégg ñuy wax Siteu amul sens si kanam Modou. waaw loolu parce que Modou Lo sorti yi mu def la nag ku jàpp Ama Baldé daan ko jàpp Boy Niang daan ko boo desee Siteu loolu la ñuy wax mais ñun Siteu ñun ñoo ko yor xam nañu moom mooy kan. comme nan nga gisee lamb. Euh, seize heures mu commencé dix sept mu jeex euh, dix loolu mooy yoon lamb dafa war a teel a commencé tas loolu mooy yoon. kon d'accord nga ci loolu. waaw bu bu baax sax laaj d'accord par exemple da nga siy nekk maanaam lamb day tooñ ku doonul dara si lamb maanaam lamb day tas mbër ma yëgul suba teelee dem jël alalu jàmbur wala ñu dem dogaale benn oto boo xam ne yoonam newul si lamb. ñu topp di ñaanal mbër mi safaan. mi safaan te yow mbër mi yëgoo tinoo kon làmb dafa war a teel a commencé a tas ku nekk dem ñibbi. est-ce que stade bi fii mu nekk amul sécurité. yow yaa ngi nii dara baarew ko lu si waaye def lu ñaaw man nga dugal si biir séyaan dem sa yoon mais làmb dafa war a teel tas ku ne dem si jàmm. diggante euh, euh, nu mu tuddee waaye mbay guy gi Moussa Ndoye loo ci wax. ne. ma ne ñaan Moussa Ndoye yàlla may nga ndam. non bu ñu tàqali ko moo tax mais wax ma la koy ñaaral ma bu ñu tàqali ñoom ñaar. waaw mooy li ma la rek moo tax ma ne la damaa far mënoo ma laaj si combat bi parce que damaa. nga far damaa faral Moussa Ndoye. Moussa Ndoye nga far. ah. sànq maa lay dégg ngay wax wax académie. waaw daa am benn académie de lutte bu ma war a tëgg a bari ñi vacance de la lutte boo xam ne maa ngi war a tëgg a bari ñi foofu di sargal euh, PDG Mbaye Diène comprendre nga di sargalaale ñeneen ak ñeneen ay wëssane gi ja comprendre nga ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais lamba ji ñu ngi koy def place si kee keebu keewu bari ñi bi. pour autorisation lañ bëgg a wut pour defar ka bégal ba gars def ko samedi bi à dimanche samedi bi ñu bëre làmba ji dimanche mooy doon final bi ñu feet comprendre nga heures si ngoon lay commencé 18 mu tas. naka nga ko fas yéene organisé wut mbër yoo xam te ne jot nañoo bëre wala ay xale yoo xam te ne dañoo nekk ci làmb. di bëre. comprendre nga parce que ne académie moom mooy ay booy académie vacances de la moom lañ bëgg a taxawal def ko ay valeur nañ si biir bari comprendre loolu moo tax. bëgg naa dem maama yaa jël fa kenn dem yeen jël fa kenn dem tubaab jalaaw jël fa na ñëw caare jël fa na noonu sélectionné 16 mbër. 16 mbër utal leen benn nag tegal leen ko comprendre amul bindu joxe dara gratuit amul paas tamit. man mën ay booy la nag. booy la la andil. booy bu toll ak ban âge. non nag ay booy yu am ay 16 ans rek. 16 ans andi benn bi. waaw incha allah. kontaan naa ci yow waaw yow si yow. maama yaa maama yaa mais maa ngi siyaar sama xarit ak ah, Quench mu nekk nit ku baax nekk jàmbaar nekk nit ku bëgg nit te kuy jàppale nit moom xam na man xam naa même à door de lamb am na ay business yu ñuy seq yu ñuy job kon yàlla na ko yàlla la fa cat bu loolu weesoo maa ngi leen di bëggee di bëggee seen sit internet bi di leen wax nag tey ñëw nañ làmb ji me nañ fi ñëwee ak tiis parce que rakku ama neex bu mu bokkal ndey ak baay moo gaañu mu metti trop nekkoon si yoon ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yen bi woyof metti na trop tey ni ñu ñëwee làmb ji ñu ngi ñëw mais suñu xol neexul tey falaa yendu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla na yërëm tàbbal ko àjjana yi fii daw si ama neex am xolu muñ parce que ñàkk na kooku da daan sonn si combat am voilà ñu ngi koy jaale ñëpp di ko jaale particulièrement waa Tëngéej bu loolu weesoo nag maa ngi lay béggee di la déglu mais ñu si bàyyi nee nañu maama yaa dafa bàyyi làmb maama yaa dafa bàyyi làmb waaw wala man lu ma am làmb moo ma ko gënal yàlla dogal na tey góorgóorlu naa ba créer société yor sama entreprise di liggéey mais lu ma mënti am làmb moo ma ko def diiran bi ma toog yëpp bëriwu ma tamit maa ngi def samay formation di def ay garde corps rapproché jàng lu bari xam lu bari ba yàlla tey dimbali ma ma yor sama société mais tey bu ñu ma waxoon combat suba ma dem bëri parce que man làmb moo nekk sama deret man mënu ma toog ñaari fan yoo xam ne du ma dem entraînement rawatina ku mel ni Paka Boy international ku xamul dégg nga ko ñëw liggéey Tëngéej lu mucc ayib créé fa ay restaurant Mamma Mia sama turandoo jógewaat fa dem créé benn salle boo xam ne nii salle boo xam ni mën naa ne Sénégal gi amu fa tey professionnels yi yëpp ñu ñëwee léegi fa la ñuy ñëw di entraîner mbër yu mag yi tey am na ñu fay ñëw di entraîner kon loolu yàlla na jëm kanam di si woo ñëpp nag ñu gën a ñëw jàpp si salle bi te xam ne suñu salle bi suñu salle la mooy loolu noonu. mais dama fi déggoon sa combat tout récemment fan sa diggante kan la woon. Ah, maa ngi Caam la doomu Pape Diop Basson. amoon na combat Jaw Fara moo ko tëggoon. xam nga mais yàlla dogal na mu dem ba si biir bëgg na mais yàlla antalu ko parce que dafa am problème mu moyen problème mu financièrement bu metti trop. xam nga ñu koy ñaanal parce que tey mbër mu jë euh, promoteur bu tëgg combat dugal say avance tey boo sañoon combat bi nga tëgg ko mais ah, métti na trop. billaahi moom rek laa bëgg moom a daan toog si plateau bi moom fii si ndax xamoon naa day ñëw ndax Siri xam nga billaay xamoon di nga ñëw billaay yow yaa ministre laa mujj dama bëgg ñu bëre may ma saa ngir yàlla ñu bëre daw na yaa may ma saa Touba Mbacké may ma saa bu ñu bëree ngir laa neex may ma saa naa ko de loolu am na moom loolu moom sa boobu yàlla baax na ay ta boobu jàmm si bu loolu weesoo lii nii rek dafa jar ba dee tey da ngay ñëw taxaw mbëri di la tëkku góos di la tëkku duraat te Mama Yane noonu la gëjee tey boo nee ama neex bu tëngee wala nga ni doomu daang wala nga ni gàmmu gëy noo def di nga si teg kii loolu la yàlla dogal te léegi rawatina tëngéej gi yëpp ñun ñëpp benn say lañ ay ama neex ak gàmmu gëy bàyyi ndeer ah bidéo bu tëngéej xam nga boo limee sax da ngay juum góor gi ci jaan Youssou Ndour ba mbër mi ma indi nii duubal mu nekk mbër kaamil tey mu war a bëre grand combat bi ñu koy ñaanal yàlla may ko si ndab lu kawe njortam nag parce que liggéey na combat bi lépp lu mu laaj def na ko di ñaan tey jii nii ñu wane suñu bopp métti na nag ñëwee làmb ji tiis lañ ko ñëwee mais lépp ñu ngi koy delloowaat. fi mu toll nii ñoom ñooy si adversaire mais samay adversaire bari na man maag Talfa sax combat bu neex la man maag Talfa combat bu neex la maag Jacob euh, euh, kii Balde moomu booy boobu noonu nu mu tuddati. Pokola combat la même Mbër combat la man man maa gën a booy bi nekk si réseaux sociaux yi sax di rëy làmmiñ di wax di saaga naan dina fi rey mbër bu paree may naa ko pare naa pour may ko boo bari na wax trop. mu xoolal demal nga wax ko pare naa pour may ko chance xam nga kooku tojul làmb nit ñi ma daan daanu ko woo mu ñëw pare naa pour may ko chance booy bi bari na wax trop nekk si réseaux sociaux yooyu dañ ko digal moom booy mu dem fee di sangu non non non